monsieur le maire. YouTube. Viber. ba ci noonee bii nga dégg nga xamante moo bees. sa gis. Ah. waaw waaw. yaa ngi problème naa la Medina yëpp. mais yaa ngi yaa ngi problème au niveau de Noynem. Noynem. oui parce que photo bi. waaw man dama xamul naka bi. mais man naka di victoire. maa eh, na dëgg. maire bii. mais a yu du sourire. non non non non non mais. non mais vrai sourire boo ko bëggee gis. waaw Merci. Voilà. Et puis ça, et puis, mais, et puis ça, et puis, ah, mais, mais, bu ne wax mais liggéeyoon. il ñàkk rek lan la fi def li liggéeyoon kay nii man su ma ñëwee su ma ñëwee ba jël maire bi ngeen xam lépp. monsieur le maire mi ngi liggéey. moo sama maman. maam. je vais te donner de l'argent. nga dugg si Medina pour sama tur gën jëm ca kaw. dans les mosquées dans les jumaa. même dans le cimetière euh, bi. Côte parce que man am naa ay mbokk yu nekk foofu le jour des élections nga dugg yoo sama tur ñoom ñu dugg ñëw ba teel na. je vais te donner de waaw xam nga le problème qui se pose mooy milieu bi bu ñu ci gëjee bu ñu ci gëjee gisee dañ ñu tuddul. ndax ku ñu woo nga ñëw mais ku ñu woowul doo ñëw. ami bees yi leen la ñu bëgg ñun màgg di ñu teg ñu fee. waaye li ngay jëlee sa li ngay jëlee ñaari comédien yu jigéen jël ñaari xale yu tolloo nga peintre kii ookor ko mu mën a jur kii mbaa mu nekk bàjjenu kii mbaa mu nekk maamu kii dama ne boo liggéeyoon sa sa casting ba mu yegg mbaa nga ne sa scénario ba mu yegg nga ne xaaral maire bii soxla naa ko kaay jural ma kii kaay bàjjenu kii kaay maamu kii mbaa nga jëlee paaba nga indi ko mu jur cere du yàq ko day gën a neex rek ndaxte xale lu man man man man ah doom yaakaar ne xelum magit ci la bokk ndax bañ ma ngi daan def pénc di waxtaan di dal seeni basang di lii dagale di léeb lu ko daan waral xel mag ñu baax ñi ñoom li ñuy def nii nañu ciy geestu ci lañu bokk ndax ñoo leen jur mënu ñoo fexe fexe ba juru leen lii ñu at in am ci aar bi yàlla nañ ko romb di dem yàlla ma leen fanu gudd yàlla la fa leen cat te ñu nag léeg-léeg doom ay ñiy bind te léeg-léeg ñoom ñuy woo gone yi nañ ci boole mag ñi yéen ñii tamit di yor yi di luqati nit ñi dee leen ñu boole ci yëf yi waaw dee leen ñu boole ci yëf nag ndaxte yéen tamit ñu am importance ngeen ci fii yi léeg-léeg ñu laaj leen kenn mbaa ngeen dem reportage mbaa dara ne eh xaar ñu woo maire Rama mbaa ñu woo maire Aïda Souka ah mbaa ñu woo maire Mbaye ak mbaa maire Awa Mbaye day gën a neex rek. ah théâtre nag léegi dañ koy joxatul boroom bu njëkk artiste moo doon théâtre comédien yi. la ñuy jël yóbbu leen cinéma wala ñu yóbbuloo leen si place tirage wala ñu wane leen tele waaye léegi nag ku jóg rek théâtre ñi nga xam ne ñoom moom publicité joxatuñ leen publicité ñi moom théâtre joxatuñ leen théâtre ndax ñi nekk si bureau yeeg ñëpp ñoo jóg dugg ci théâtre bi théâtre moo tax ñun mag ñi ñu toog waaye fa ñu nekkoon ba tey ñu nga fa fa ndox daan taa ku dem fekk fa tepp tepp la ndax maa ngi la yëgal na la mag du yàlla waaye yàgg na yàlla te màggatum jinne lu mu màgget màgget am ñale ju bu mu jomma la waxambaane kon nag ñun ba tey ñu ngi fi ba léegi mag ña fa ñu toogoon di théâtre ba léegi mag ñi jóguñu fi xanaa nag dañoo xaw a fàtte rek bàyyi fi waaye nag fa ñu nekkoon ba tey ñu ngi fi. mag ñi fi nekkoon démb magi artistes yi nekk ci biir Medina mu fas yéene leen dajale sa fas yéene leen a sargal dañ bàyyi rek yàlla nañ ko yàlla fayal ndax loolu. lu mu rëy ci moom rek ci ñun ñi la gën a rëy ndax euh, nit ki toujours ma di ko wax ñun les artistes dañ bëgg ñu di ñu ko defal ci bi ñuy de nos vivants mais jox la kii boo xam ne à titre costume yal nañ ci yàlla musal li mu def nag neex na yal na ko ci yàlla gën a jàppale ni mu suqal jàppe nii mu oowee mag ñi ne leen ayte yàlla na sekk ci daraja Seydina Muhammad jërëjëf alors